am mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey la dimanche 8 décembre 2019 Jibi Ndiaye moo fi woote diggante Bulldozer ak ki nga xam ne nii moom moo di ah Brise de Mer bu caaro yi gaynde yaa ngi nii ci porte bi gaynde noo sant oui oh. Oh. waar gaynde yi ci police ba yi gaynde na xanaa duñ lekk jën salaale Mouhamed wala ala Mouhamed. acca. non Maka Dia bul ci kenn jaarale ci man mii yow yaay daa may baay daa raamal ñëwal ñëwal bu ma laal yaa mu xañ nga ma nday xañ ma baay soo ma diggee sama doom dang may nax àdduna yaaye mun a war laay ku laay puisque laay woo ar moomun ar gaay moomun saka jaa maka jaa bur jaar man mi di baay daa bay raamal dun jee dun jee salaamaaleykum yël bët baay daa way waa ndeysaan deuxième combat de la soirée Mbaye Feugeule à gauche deuxième combat de la soirée ak nan Kayma Kayma ay waay Kayma garaaw di Kayma kay war a sol lu pël Moodu Anta borom arène bi pël loo wax Babacar waxal. bal mii bëgg a dugg ci yow xamul li mu def de mën naa toog teneng mën naa toog de. ah loolu de yaa ko seere ndax xare ko ko téye ko mën a nett li ndax teneng toggal nala la nga reer. bal mii maam mën naa toog. jox na la añit nga añ nag. ak ndekki. ak ndekki waaw yooyu moom am na. bal munu ko. ah pël lamina fekke lool de damay bañ a wax man saabu du fóot boppam la wala fax moom nag moo ko teewee. da a toog. yow. ah cim. ah lii dara fayu. ñu laaj ma kon est-ce que sama bopp sax. ah cim tey nga laaj ko ni ñu ceebu jën. ceebu nuñ koy toogee pël. waaw kat nag yaboo ma Lamine bi moo yab. moom de lay laaj. moo yab ngeen moom. bàyyi bañ dem Gàmbi. ya. Gàmbi sori na ne nu Ndakaaru Njaay. ñii daal jëlal bi jàppante bi it. dawul mujj eh daan na ko daan na ko ah way ma eh booy ba sotti na ko waaye lii lan la eh eh, eh kaymaa mii def na yëfi kaymaa de waa kaymaa loo def nii yow ay mbay fëgala lonkaat na ko ko ay waay mbay fëgala la nga amoon neex na di mbay fëgala mbaa dooti nga am loolu mbay fëgala loolu rëcc na la di mbay fëgala fooy foreeti loolu mbay dina ko daan mbay dina ko daan mbay daan na ko ah way mbay fëgala daan na kaymaa ga eh Mbaye Feugeula waaw waaw xool supporteru Mbaye Feugeula ya waaye supporteru Mbaye Feugeula ya waay eh way ndaw defal lu la neex Feugeula waaye yéen xeex jël leen combat combat ngemb combat bu amul ngemb lambu ji ngemb ca biti leen ñu xeex bàyyil bàyyil bàyyil ah ah ah Sénégal a bëri phénomène y a beaucoup dans ce pays. toog leen. toog leen. xoolal kee ah, ah, ko. eh moustique eh moustique moustique takk ko. ñu ngay bëree caaya ja eh kalu sooba <laughs> eh, kalu sooya kalu sooba kalu sooba ey waaw waaw waaw waaw ah waaye làmba ngi xoolal lii waa moustique mi yéen lu ko dal waa lu xew fii tey ci bi ñaay sa làmb ji loo fi sotti. poobar poobar kay ba mu saf. ba mu saf a saf. Alizé mbërëm Mama Yaa la seen naa Mama Yaa mu nga ne la taxaw Alizé. amul frein amul frein ngi dox ci kawam rek waaw loolu de eh door na ko de xeex laa ilaha illallah eh daw na daw na daw na eh door na ko mu wat laa ilaha illallah waa Alisa loo def bi amul frein ay waay amul frein daa daw amul frein waroo war a daw waroo daw amul frein Alise Alise. daa kawoo de dafa kawoo de xamul fu mu ne de. xamul xamul fu mu ne de. yàgg maar Alisa xamul fu mu ne de. déedéet Alisa mu kii moo xam amul frein moo de. amul frein moo xamul fu muy taxaw waaye amul frein xamul fu muy taxaw de. arbitre ndax kii kaw bi bàyyi na ko. avertissement. daa génn dafa daw. waaw Pape Ngaye xanaa ceebu jën moo yaa rëy. waaye moo waaye Alioune Sèye amul frein bul daw taxawal taxawal bul daw waroo daw eh door ko mu daanu daan na ko daan ko door mu wàcc wër ko ko dina ko rey dina ko rey dina ko rey dina ko rey di xool kee waaru ay waay amul frein waay amul frein saaraan da koo duma daan ko mos Lamine eh, eh, eh. waaye kii weex na xat am nga jàmm. naa jàmm sa combat mi tina de. waaw mën na ñàkk xam nga waay mbër la comme mbër yëpp te combat bi dañ see liggéey lu metti xam moo tax mu demee ba nekk nga ne. man bawol mbooloo laa nekk. bawol mbooloo. ñoom tafaat. bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama premier combat arène mais maa ngi woon àll ba quoi dégg nga kontaan ci maa lay fay eh, na ko caxabal na ko daan na ko. laa ilaha illallah. Eh, nga la tracé caxabal na Zarko. moo daanu de loolu laa lay wax ni Zarko daanu na ba tëdd ah eh. ko bu ko forcé. nga la ko wuurul Lamine. forcé gënu. réparé Tidiane réparé Signor yéen a ngi déyante de réparé Signor eh daan na ko laa ilaaha illallah waaye eh, waa Tidiane Faye eh Tidiane Faye Tidiane Faye ngi Babacar kii kat la Tidiane Faye Babacar tur wuy na borom Tidiane Faye tànn na lu mu bëgg Babacar xanaa fan la jëm ah doy na waa fan la jëm Babacar waxal ma ko ku la neex oh waaye Tidiane réparé na réparé ñu ngi ko yëkkati ay waay réparé nañu réparé réparé nañu réparé oh Babacar tëral boppam. wala ba bañ a mën nañ ko wax ci kaw. Matar Ndiaye ko yor ko tëral yaa ko tëral. waaw boo ko toroxalee dañ koy solal caxat xam na caxat. waaw xam naa caxat ba caxat yi nii ñu koy solal ñu koy caxat lañ koy solal. tey la yàgg maa ne xam na caxat. ca xam naa caxat Babacar. mu koy joxe mu ngay demee boo demee dëkk bu naan ndem. waaw da nga koy seet sax àll ndax wóor na Babs ah, ñàkk takk dara ndax wóor na dëggantaan daal li ma xam mooy mbër takkaay boo demee ci dëkk fekk ñëpp bu duggee huit heures ñu lay tëdd bu huit heures tëddee la la tëdd dëggantaan moo gën a wóor làmb la mbër takkaay ah daan na ko rafetal mu ngi noonu Brise arbitre baa ngi wax ak ñoom de tey la dimanche 8 décembre 2019 Bulldozer à gauche ki nga xam ne mooy Brise de Mer à droite xanaa da ngaa naan dara Lamine Lamine tey la nga ne tey la 18 Lamine Lamine naan puudaru mbóot wala bu bar wala bu mbët ñu ngay lewaatoo ñaari droitier Lamine Brise Caaroy sur Mer. kan la mujjee ko mujjee daan. Malika. fàttali ma ko. alias Biram. alias Biram la mujjee daan ca arène nationale. eh sans verdict la mujjee. dañ ko mujjee kase. waa loo ci mën a dégg loolu avantage la. waa ndax looloo may tey mu ñëw nii di bëre grand combat. ndeysaan général Malika ko andi. kële ma ñoon siñoor ko andi. Caaroy ak su ngeen bëree war na ay dëkk ngeen yéen a dëkkandoo yéen a bokkum pegg làngandoo waaye Ousmane Diop nuyu naa ko de borom Émile Badiane tey moo ma ci blouson Ousmane Diop eh door na ko Ousmane Diop bu Balla Gaye 2 maa ngi koy nuyu na de cokkaasante Brise de Mer Jibson Production combat bi nga ni amateur yi neex na waaye jéeya ngi waaj le 22 décembre Serigne Ndiaye Libidor petit production le 21 décembre booy yëmbal xeeru ngor numéro 2 eh waaye Baba Diaw borom la 14 décembre Papa Ndoy Jackson jàppante nañu jàppante nañu waaye ana jamaïcain forom Gambia eh bàyyi ma njoon xoyantaan laay door na ko de booy bi na mooy ture xale bi am na expérience te Brise de mbër mu mag la de eh mu ngay dox ca kawam de daw na jël ko moytul dalay daan daan na ko oh daan na ko bi daan na ko yàgg na daan na ko bu yàgg da koo dóor tànk te yàgg maar tànk la ko dóor toppal ma lii toppal ma xale ba dafa jël tànk bi mu dóor ko tànk da koo dóor tànk laa ilaha illallah da koo dóor tànk da koo jël mu dóor ko tànk yàgg maar toppal ma loolu.